yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi mbokki jullit yi mbokki yi fu ngeen mën a nekk ci àddina ñu ngi leen di nuyoo fii ci jumaay Touba ci taxawaay bu am solo bi nga xam daayira Muxaddamatul Xidma mu ngi koy taxawee fii ci jumaa ji ci diggalu Cheikh Mamadou Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fii loolu ànd ak wér di sant yàlla bu baax nag ci euh, li nga xamante di wax ne alhamdulilah lesi bi ni'mati tatimu salihat liggéey bi tàmbaloon nañ ko lu lu tolloo ko ñaar fan ak juróom-ñeent tey weer wi feeñ na waaye itam ñu daloon fii mbooleem ñi nga xamante ni ñooy euh, waa waa waa dëkk bi di njabootu Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci fan wuñ ci mën a bokke tey jii nag kuréel bu am solo bu am solo euh, ñëw. Euh, ci jumaa ji fekk si woon waxtaan woowu ak te boobu nga xam moom lañ doon def waxtaan yi muy kuréel bi nga xam ne moo ŋànk li nga xam moo di màggal Touba muy comité d'organisation Grand Magal de Touba euh, ay kilifa jiite ko ñu ñu ràññee ñu jaxasoo ak ñoom nga xamante ni ñen ñi dañoo bokk fii bokk foofu ñoom itam ñu bokk fii bokk foofu ñoom itam ñu xam ne wàccuwaay bi ñu am ci barab bi nga xamante ni mooy barab bu ñëpp rawatina ñoom seen bopp seen barabu maam la ci ñaari ci ñaari yoon euh, ñoom nag ñoo ñëwoon tey fekk si waxtaan wi am kaddu ci njiital eh, sëñ Abo Mbacke eh, xasida ak sëñ Moutada Bousso ak sëñ Moutada Lo ak ki nga xam ne sëñ Jili Bousso ñoom ñëpp ñëw nañ waaye ñu jox sëñ Jili sëñ Moutala sëñ Moutala moom itam mu indi kaddu yoo xamante ni mooy kaddu yu délégation bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp di ziare bokki jullit yëpp di balu ak ñëpp tey bal ak ñëpp di sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu mayee kattan. ñu dugg ci weer wu sell wii di saxru ramadan al mubarak dugg ci bismillah rahmaani rahim ba def ko ni ko suñu borom santaane woon ci alhamdulilahi rabil alamin ba suñu borom dogal tey jii weer wi feeñ kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di nuyu daayira muxaddamatul xidma ci njiital sëriñ afiya bu sa al imam di leen ziyaare bu baax a baax ci turu comité d'organisation bu Grand Magal Touba ci njiital sëriñ Cheikh Bachirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khader waaye ci coordination bu sëriñ Ousmane Mbacké bu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ñu ñëwoon teewal si leen fii ci uh, ndaje yu am solo yi nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di amal te di ko dem am amalee fii ci jumaa ji muy ndaje yoo xamante ne bii ndaje yu ama ama am am solo la di ndaje yoo xamante ne bii ndajey diine la di ndajey lislaam di uh, ndaje yoo xamante ne mën nañ ko tuddee ndajey social yoo xamante ne bii ñu ngi koy amal ci biir jumaay Touba loolu nag di liggéey bu ama am solo boo xamante ne bii Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi koy taxawee waaye euh, yoral ko ki nga xam ne moo fi nekkal Seexul Xadiim muy Seex Mamadul Muntaxa te mu bokk ci muy benn pàcc rek ci liggéey bi nga xam ne moom lañ amal te di koy liggéeyal Serigne Touba ñoom seen taxawaay dafay taxawaay boo xamante ne bii taxawaay bu ama ama ama am solo la ci yoon wi fépp foo xamante ne bii yoon wi am na fa yitte rek ñoom daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu nga ci biir euh, la preuve rek mooy que comité d'organisation bu Grand Magal Touba bi nga xam ne moom lañu fi teewal ñoom daayira Muxaddamatul Xidma bokk nañ ci a am solo loolu nag kon ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di ay nuyoo ak siyaare bu bàyyi ko ci sëriñ bi ak ay cant yoo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di leen ñaanal ci barke Seexul Xaddim mi nga xam ne moo tax ñuy liggéey liggéey bi suñ borom nungu ko te fulal leen ko te defal leen ci lu kawe seen jotu te defal ko bàyyi xel ci ne lii nga xamante ne bi moom la def nañ xam ne Serigne Touba lañ koy defal lii ñuy def itam lépp lu ci waay jëf wala nga def ko ci rek Serigne Touba nga ko defal kon nag fu daayira mën a nekk fu ab taalibe mën a nekk ci àddina bi na xam ne daayira Muxaddamatul Xidma seen liggéey bii ñuy def lépp loo xam ne mën nañ leen cee jàppale ba euh, li ñu bëgg li ñuy liggéey ñu mën koo yéwénal loolu na ci bokki taalibe yëpp jàpp ndax loo waay teg ci seen loxo rek ci loxo Serigne Touba nga loolu nag ñu ngi koy lancé appel boo xam ne mboolem taay bi lañ koy lañ koy lañ koy lañ di leen sant bu baax a baax ci seen disponibilité ak ci seen engagement ak ci seen volonté ñu leen ciy sant bu baax a baax di ñaan suñu borom jàppale leen te taxawu leen te may ñu kattan ñu teewaat ko at yu bëri lool ci barki Seexul Xadiim mi nga xam ne moo tax ñu daje fi ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi